li ca gën a fës Cheikh Ibrahima lii di ndaw bi mujjee ñàkk bakkanam démb ca na gannaaw manifester yi fa amoon na jébal nañ ko sunu boroom ni ki démb xool yépp a fees njabootam gannaaw tiis bi leen dal di sàkku yoon def ca liggéeyam su ko defee ñu xam kan moo ko fàtt Guy Marius Sagna a nga kaso ba tey lu ëpp fukki fan ak juróom ma ngi nii ñu euh, def ko mandat de dépôt avocat wam di maître Moussa Sarr ma fa demoon na seeti ko nee na Guy Marius Sagna altineeg jàmm euh, euh, bii di ñëw boo moytuwul dana soobu ci ab xiifal kaso bu mbuur prisonnier ya fa rëccee woon daw ajjuma gi weesu ñaar fukk ak benn lanu woon juróom benn ya jàppaat nañu leen delloo leen ca kaso ba ña ca des ba tey ñu ngi leen di wër médecin pharmacien chirurgien ba ci dentiste yi daañu amal ab grève ñaari fan li ko dalee fukki fan ak juróom jàpp fukki fan ak juróom ci weeru mars gii li tax ñuy gréw nag daa ngeen ko xam ci biir xibaar yi màggalu kasu rajab bi ngir fàttaliku gane si àdduna Serigne Fallou Mbacke boroom na am mu am ni ki tey la waaye nag gannaaw yi ñu tere ndax feebar bii di mbas mi teewul am na ay taalibe yu yu bàyyeekoo ci ay gox yu fasanti ko yu bari wutali Touba. xibaari biti réew dañ ci ànd ak Georges Déthié Diop tàggat yaram ti Tidiane Diagne li ci yéene kaay yi ak Alaaji Assane Gueye gis-gis ak RFM tey laaj bi moo di yan yeesal la nguur gi war a andi ci doxalinam gannaaw li fi xew barki démb Martin Lemingo. Aliou Ba moo ci machine yi mbokk yi ngi leen di nuyu rafetlu seen ànd ak Futur Media xibaar ñu tàmbale kook mbiruma Cheikh Ibrahima Koli di ndaw bi mujjee ñàkk bakkanam ca bi ñëw na gannaaw manifester ya fa amoon jébal lan ko sunu borom fa tax gannaaw bu mu ci yoon mu def liggéeyam su ko ñu xam kan moo ko Lamine Ba. Bayla mooy diwaan bi nga Cheikh Ibrahima Koli nga nañ ko fan yi weesu fa la fekk baax démb nag nit ñi jóge nañ ngir rob bi nga def nañ ko ko ay jegeñaale ñu bokk ci langue politique bi ak sax ci société civile ñëpp ñëw teew mbokkam yi jàpp ne ñàkk nañ ko baax Abdou Koli cousin wu Cheikh Ibrahima Koli la. façon bi ñu cité daal ci ay kaddu kii di Boubacar Solik bokk ci FRAPP France Dégage di organisation de la société civile bi. liñ fi nemmeeku tey dafa diis dafa diis dafa dafa dafa dawloo yaram dafa tooyal xol nit ñi benn bakkan kese dafa fort te képp nga xam ñoo nga fii nii si enterrement kii di le camarade Cheikh Ibrahima Koli di nga gis ni population ah, xam ne ñëw nañu fi nga xam ne nag moo di ne xew na ca Bignona Bakary Diatta di lu jëm ci wàllu ngir ñu mën a situer responsabilité yi lee am nañu lu ñu na xari jël ay balu fetal réel di ko dóor si xale yi donc loolu ñu ngi koy ñaawlu di ñaan organisation euh, saytu yelleef doomu aadama ñi xool naka la ñuy jëlee dossier boobu ndax ñi topp ñi def ñaawteef boobu ñi teg leen ci yoon. njaboot ji yëkkati ay kaddu jëmale ko ci fànn woowu leen. yoon bu ci amee loxo rek il faut mu leeral nit ñi pour nit ñi mun a dal façon dee bi nag moom. yoon nee na am na am na ci yoon am na ci am na ci paaram kon nag ku ci am sa paar rek il faut nga doxal ko. ci fàttali bi ñëw na fan yi weesu am na ñeenti doomu aadama yi nga xam ne seen i bàkkan wadd na fa mën nañ ci lim xale bi nga xam ne moo ngi am fukki at ak ñeent mu gaañu demb ci hôpital régional bu Ziguinchor Lamine Ba Ziguinchor Radio Futurs Médias. Yankuba Sagna mooy maire bu Sindia teewe woon na ci bi ñuy rob kii di Ibrahima Koli ba mu ca noppee ca la jël kàddu jé eh, jéemale ko nag ci eh, ñi nga xamante ni ñoo di alkaati yeeg eh, sàndarma yeeg ñi nga xamante ni daal ñoom ñooy watu kaaraange askan wi tuumaal leen ne ñoom daal doole gi ñu jëfandikoo ci bi ñuy tas manifester yi dafa métti lool ba tax na ñuy sa muy sàkku ci ñoom ngir bu yi amatee te ñaanatul yàlla sax mu am bu ñu dee defati intervention nu ànd ak dal Yankuba Sagna mooy meeru Sindia ñu déglu ko kàddu yi mu denk Lamine Ba. bakkanu nit dafa foor waa takku der yi ne leen da ngeen di jot ay ordre ñi def leen lii waaye tamit xam leen ni ñëpp ñu fi nekk di leen di jox ordre bu subaa dañu fiy jógee kenn mënul si coobare boppam wala si coobare képp ku mu munuta doon képp warul am droit yëkkati gànnaay di ko sox si xale boo xam ne euh, maanaam xeer la yore ñu koy tuddee usage disproportionné de la force borom fetal warul yëkkati fetaloom ba di ko sox koo xam ne loxo neen la yore wala ab xeer la yore xeer bi mënula rey yow mais sox fesal fetal bi nga yore moom euh, askan wi bokk na si ñu lay fay bokk na si ñu tax ba nga am fetal boobu bul jël fetal boobu jaakaarloo ko ci askan boobu ba euh, di ko rey tey responsabilité bu mag la xoolal sa ginnaaw am nga ab doom boo xam ne toll na noonu donc xoolaat leen bu baax seen bopp duñu ànd benn yoon si ñi nga xam ne muy soldat bi nga xam ne moom moo ko def muy supérieur bi nga xam ne moom moo ko yebal pour mu dem jaakaarloo ak xale yi je pense que loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax Sénégal du leen baal loolu Yankuba Sagna mooy maire bu Sindia li leer mooy manifester yi tax na ñu bëri jëlee ci ay gaañu gaañu loolaa tax Amnesty International bu Sénégal li ànd ak euh, ligue des ligue sénégalaise des droits humains ak rado di ay kuréel yu nga xamante ne ci ak ak yelleefu doomu aadama la ñuy yëngu ñoom nag euh, ñu ngi sàkku ci ñëpp ñi nga xamante ni jëlee nañ ci gaañu gaañu ñu euh, ñëw jege si leen su ko defee la ca war daanaka ñu mun leen a jëlal ay avocat yooyu su ko defee bu sub àtte wala bokk leneen lu ci nar tukkee de ñoom ñu mun ko yennu daanaka sax jàpp nañ ne am nañ ay dossiers yu bëri yoo nga xamante ne yoot nañ leen ko Mouhamed Ali Mouba fu mu toll nii dossier yépp ñëwuñu waaye nag am na ay victimes wala ay famille victimes yoo xamante ni commencé nañ signalé wu avocat yi ñu ngi constitué wu waa droit de l'homme pare jàppale leen di Niass yor rado. xam nañu ne daal bëri na bëri na ndax ñu ngi wax ay juróomi téeméer ak juróom benn téeméeri nit ñoo xam ne nii xëy na ñoom ay victimes lañ si mun na ko ëpp tamit ñu il faut ñu def enquête ba pare entrer en contact ak famille yi ak victimes yi ñoom loolu la ñu bëgg ndax dañu bëgg ñu gunge leen ci justice mais ñoom ndax dañu bëgg rek ñoom ñu am indemnisation. waaye nag kii di Seydi Gassama Amnesty International Sénégal amul confiance dara ci procureur gëmul ni dina def enquête yi war ci wàllu violence yooyu su ko defee. ñu def liggéey bi war waaye nag nañ def attention ci wàllu woowu ndaxte ñoom

devoir dañu porter plainte contre des personnes identifiées am na ñoo xam ne leen jàpp yóbbu leen ci commissariat toroxal leen dóor leen torturer leen bokk na ci ñun suñu représentant Kaffrine dañ ko jàpp béj ko saaga ko torturer ko te deful leneen lu dul ñaawlu comportement police Kaffrine bi nga xam ne n'est-ce pas ci buntu këram lañ doon ay manifestants yoo xam ne yoruñu xeer yoruñu gana yoruñu dara lu dul di dox ci kaw tali kon loolu on va porter des plaintes contre des personnes identifiées lii mooy procureur yu bari ñu ngi commencé di autorisation d'inhumation ngir ñu mëna denc victime yi moné certificat de genre Bobo médecin généraliste waru def médecin légiste moko wara bind ñooñu ñoo wara def sen autopsie ba paré ñu xam lan mo rey victime yoyu bala ñu di ngir justice mëna liwar def li war ci Mohamed euh, Ali Mouba Guy mariou Sagna lu ëpp fukki fan ak mu nekk ci bi mandat de dépôt bi nga xamanteni def nañu ko koy toppee mu di bokk ci mouvement boo xamante ne fitna mën na ca juddu wala sax turu bale nit ñi yooyee la ñu koy euh, toppee avocat am maître saar demoon na seeti ko euh, ba mu ca génne ca la ne ca la dénk RFM ne leen Guy Marius Sagna altine gii ñu dëgmal dana soobu cib xiifal la mu bëgg mooy ñu bakko bàyyi waale it mboolem ñi nga xamante ni teg nañu leen loxo ci jamono ji ci ñooñu ñu teg loxo am na ñoo xamante ni ñu ngi tàmbali sax euh, di leen di atte am na koo xamante ne Serigne Saliou Guèye lay wuyoo Euh, ca Grand Yoff la euh, dëkk atte nañu ko euh, ba daal di ko bàyyi ci atte nañu ko ci tribunal flagrant délit ba sax jot nañu ko bàyyi kuréel gi nga xamante ni moo ëmb kuréel këru yéenekaay yi maanaam ñi yëngu ci tasum xibaar ñoom sànq la ñu doon dajeek taskatu xibaar yi ñaawlu nag violation flagrante yi nga xamante ni daal nemmeeku nañu ko ci lu ñeel liberté de la presse Euh, ci mbirum Adji Sarr ak Ousmane Sonko euh, ñoom ñi nga xamante ni ay professionnel de la presse lañu leneen it lu ñu ñaawlu moo di euh, ñàkk solidarité bi ñu nemmeeku ci biir taskatu xibaar yi plateforme boobule leneen it lu mu sàkku moo di ñu tas lii di CNRA te taxawal beneen ab kuréel daañ ci ànd ak Nafisatou Sila si yeneen jotaayu xibaar. Euh, beneen ab kuréel di collectif boo xamante ni la ko tax a jóg mu di defendre euh, Guy Marius Sagna ak ay ñoñam ñi ñu jàpp ci euh, kaso bi ñoom nag ne ñu file ki fan daa ñu wàcc ci mbedd mi ngir ñu bàyyi leen nu mu gën a gaawee tey lañu ko xamal ci ab ndaje gu ñu seqoon ak taskati xibaar yi ci makkaanu Frapp dégage Oumou Kalsoum li li ñuy dénoncer c'est des arrestations à domicile. ci buntu makkaanu Frapp France dégage. lañu dajaloo ngir lenn rek muy ñu bàyyi kii di seen natango di gi Marius Sagna kuréel gi nag teg ci ne ñoo ngi ñaaw li itamit jàpp ñi ñu dëkkee di jàpp ñi nga xam ne ñoo di seeni njoñ Babacar Sall nekk coordinateur ngir xeexal kii di Guy Marius Sagna nekk itamit ki jiite ndongo yi nekke ci privé bi su fekkee ni kilifa yi fi ñu taxaw ba léegi taxaw nañ fa lu rawloo dina am ndax Guy mari Sagna mooy sunu héros national Guy mari Sagna c'est c'est un révolutionnaire Guy Marius Sagna c'est un patriote nit la koo xam dañ ko war fonk mais war nu ko jël di ko néewal doole di ko tuutil di ko teg li nga xam ne itam ñu nga xam ne famem dañ si teg seen bët te duñ si mën dara ci boobu la ñaxtu kuréel gii ngi ñaan itamit ngir ñu bàyyi seen ñaari ndongo yi ñu tegoon loxo ci daara ju kawe bu ndakaaru jàppan loo tegul fen ku si mel ni du Wuri Bari ku si mel ni aussi Amadou Sow ñoom ñaar ñëpp dañ leen jàpp yóbbu leen te su nga fàttali ko boobu Ousmane Sonko njëkkee génn dem université depuis boobu na leen jàppee defuñu waxuñu dañu génn comme ñëpp nunu ko defee woon pourquoi nox seppale ñoom ñaar yóbbu leen te seen place kuréel gi ne fas nañu yéene dox tànki jàmm ci njiit yi ngir ñu yee ci yàb bi lu ko may nag daañu wàcc ci kaw tali bi ngir am lu ñu bëgg. Umu Kalsum lii magasin Auchan yi xam ngeen ko sonn nañu lool fan yii ñu weesu gannaaw pillage bi nga xamante ni def nañu leen ko ya ca des te laalu ñu leen euh, ñu ngi tàmbalee ubbi bokk na ci bu euh, ci bu fan démb la tàmbalee lëgëyaat euh, ñoom nag anarocha mi fa xëy dem tey nem lam fa nemmeeku moo di kaaraange ga dañ ko yokk kiliyaan ya kontaan lool. gannaaw ñeenti fan yi mu toog banque ay Alain am mbégte delluwaat ci bërëbu liggéeykaayam ci rayon yi lay liggéeyee psychologiquement franchement métti woon na neexu ñoon tamit hein, franchement mais quand même Auchan au nañu. Auchan de Résidence bokk ci euh, supermarché yu néew yi nga euh, touch. solo kon exemple bi buñu euh, manager ci supermarché bi. tay nañ crise ba nga na des Sénégalais parce que Auchan tay ni Sénégalais yu ñoko mom tay Auchan plus de 1730 employés ak fournisseurs directs nga produit yi ñuy defaree ci dëkk bi lañ fay dugal di ko jaay Auchan Fann dafa jëloon initiative démb njëkk tijji ci magasin yi parce que dañoo bëggoon tey wane ni gaay ni que ni yàq nañ mais ñun dañoo ñëwaat pour remonter waat pour tamit satisfaire sénégalais yi quoi magasin bi bu muy ubbiwaat ay buntam démb midi client yi gedduñu ko rayon yi ñu ngi fees dell kaaraange gi ñu yokk ko Ibra Ndiaye boobu lee la dëkk nee na yàq yi metti nañ ko lool. lu baax la ubbiwaat bi baax na trop ndaxte temps yi moom nit yi sonn nañu sonn nañu te vraiment li ñu def osan yi jaaduwul. vraiment ay sénégalais donc ñoo ci liggéey. ci ak ñetti magasin Auchan yi nga xamantene mo am jamono yi fi ci euh, Sénégal liko dalé dalee alarba ji gën kaa néew juróom-ñaar ci ñoom dinañ tàmbaliwaat dox. Anna Rocha muy lu baax euh, ndaxte ay sénégalais ñom ñoy liggéey ci Auchan yoyu lé sàmm leen di sàmm seen liggéey euh, sàmm it seen njaboot. kaso bu mbuur fa la ñuy jëm prisonnier ya fa rëcce woon euh, daw ajjuma gi weesu la woon ñaar fukk ak euh, euh, fukk ak benn ci ñoom fukk ñaar fukk ak benn la ñu woon ngeen baal ma juróom mbenn ya jàppaat nañu leen delloowaat leen ca kaso ba ña ca des ba tey ñu ngi leen di wër Abdourahmane Diallo ñeenti fan ginnaaw coow gi nga xam ni amoon na ci prison bu mbuur ba ñenn ci ay prisonniers daal di rëcc jot nañ cee teg loxo juróom benn lu toll nag ñaar fukk ak benn nit nag ñoo rëccoon ci prison boobu te bi ñu doon def li ñu mel lu ëpp fukki nit amoon nañ ci ay gaañu gaañu ñaar amoon ci ay gaañu gaañu yu metti ñoom sax ba fi mu ne nii ñu ngi leen di faj bu ñu sukkandikoo ci suñu xibaar ñi nekkoon chambre huit ñoom ñoo daal di rëcc jamono bi ñu ko doon def nag juróom-ñetti garde pénitentiaire ñoo fa nekkoon ci ñooñu ñaari chef de garde chambre huit boobu nag ni moom moo gën a doy waar ci prison bu mbuur ndax ñi ñu jàppee bandi yu mag lañ fa daal di tëj ñenn ñi sax dañ leen doon joxoñ baaramu tuuma faat bakkan kenn ci ñom sax bokon na ci ñu ñu tuumaloon ni ñom ñoo faat waji doon liggéey mairie bu mbour bu ñu sukkandiko suñu ay xibaar prisonnier yi nga xamni jotu ñoo recc ñom fi mu ne ay yu metti la ñu nekk di dund li ni mel sax tax ñenn ci ñom fasiyene yéene tàmbali xifal ci ay fan yu neew ginnaw ga nak jëm nañu fexé pour jot régisseur bi ki nga xamni mom moy jité prison bi way mbir mi antuwul téwul lu am ba dess moy jamono ji ñu ngi wër fukk ak juróomi ñetti prisonnier yi nga xamni ba légui léegi tegaguñu leen loxo RFM bo Abdou man Diallo. fukki simili ak be fukki juróom moo bootu ci benn waxtu. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. Serigne Mboup amna ay yu muy ko RFM ñeel euh, Walum xeyum ndaw ñi moom chambre de commerce bu Kaolack sakuna ngir ñu taxawal rek benn euh, agence Bohamantini, xamanteni moy Khayum xeyum ndaw ci mim di Sénégal yok ca nak entreprise yi ñu jox leen i su ko defee euh, ñu mëna jappalé ci walum xey yoyé nak dañ koy ci ay conditions yu lèr mom jital kurel gi chambre de commerce ak industrie nek fi ci Sénégal mo nekkon RFM matin ni ki tay ji Serigne ñu déglu état mun a créer emploi état mënut a jël ku mus créer emploi mu di ko dénk naan ko créer emploi kon tey dañu wax ne ñun li ñuy xalaatal état bi mooy structure yi mu defoon yëpp yëpp créer emploi financement encadrement kenn xamul nu mu toll cent deux cent seen budget de fonctionnement rek kenn xamul na la toll te il suffisait loolu ñu delluwaat ci orthodoxie chambre de commerce li ko waroon a taxaw affecté fa ay compétences yu am solo suñ ko fa affecté ñun de programme bi ñu ci am leer na programme ce n'est pas de jël xaalis di financer ndaw yi xam nga def moy fexé entreprise yi nga ñi ngi dox di nga dem fa ne leen jappalé imposer leen ñu employé yomb peut-être da nga am lu mat 100 wala 200 emplois 200 entreprises bo ku dana la a fait, wala président de la république dana gauche droite ndax depuis yaakaar naa ca maîtrisard ba léegi ñu ngi koy def amuñ ci benn résultat dama jaaxle nag nit ngay def dara amoo ci résultat ngay continuer rek. dafa am loo xam ne dama ko bëggoon a lancer ñaan ko. gis nga dialogue bi dafa war a dem dialogue vers une réconciliation baalante ak def un amnistie général waxuma la amnistie ay affaire politique de amnistie général et financier suñ ko defoon tey Sénégal yépp demaat te loolu dañuy duggaat ci alxuraan li mu wax alxuraan da ne bàyyi leen lekk riba waaye bu ngeen tuubee seen alal yéen ko moom. suñ demoon ci loolu man yaakaar naa Sénégal dana jëmaat ci parce que fi nit ñi dangay ngay xool ne amnistie politique comme yëpp ndax Mandela bi mu ñëwee ñi yoon topp ñu bàyyi leen ñëpp laa wax kuñ naan ku fi toog naan dama doon gérer yëpp à partir di tey nag ñu déparaat pour à l' avenir mu ngoog kàddu yi Serigne Mboup njiital chambre de commerce bu Kaolack njiiti réew mi barke démb gannaaw ba muy wax jëme ci askan wi gannaaw li fi xew moom wax na ci dialogue national bi nee na ci ñaar fukk ak ñaari ponk yi nga xamante ne ñoom la ñuy waxtaanee ñaar fukk juróom yooyu yëpp Euh, déggoo am na ca maanaam ab consensus waaye ñi nga xamante ni nag ñooy bokk ci liggéey boobule ci jaloog national bi la njëkk seetlu mooy ay weer a ngi nii dialogue bi doxatul ba noppi politique politicienne bi dafa ñëw bëgg a yàq waxtaan la sumboon foofu la ca dialogue national googe Binte Diallo mi ngi mel ni am na ñi nga xamante ne am ñu dëgg ñi nga xamante ne woon dañu jàpp woon ne dialogue national bi du dara du dul naxee mbaay Hélène nag moom jamono yooya moom bokkoon na ci dialogue national bi moo doon sax rapporteur commission ressources naturelles nee na de am na yu bari yoo xamante ne def nañ ko fa ci liggéey ci lu am solo sax waaye mujjul fenn loolu nag neexu ko mu ni ñi waroon xaatim rapport bi ca laa bokkoon te jotuñu xaatim rapport dem nañ nag ba dem ba commencé ko liggéey liggéey bu rafet waaye jotuñu ko xaatim ca lañ arrêté liggéey ba te loolu ca weeru mars bu daaw la maanaam mët na at ci diggante bon gouvernance naka la ñuy yoree sunu pétrole beeg sunu gaz bi dialogue national bi daal lu ko taxaw na jóg bokkoon na ca ñu am déggoo ci lépp nag jublu ci intérêt Sénégal lépp lu jëm ci développement économique ak social lépp lu jëm ci paix et sécurité maanaam jàmm lépp lu jëm ci mbirum fànn yu bëri ci réew mi ñu rencontré nag acteurs yépp pour indil nguur gi ay càmbar ko indil nguur gi ay solution solution yooyu tey bu fekkoon ne tey nguur gi jotoon na ko ata ngi nii mu jëfe ko kon xëj na tey guuta gi nga xam ne moo dugg ci réew mi xëj na waroon nañ ko romb xëj na dina yàlla mënoon nañoo musal nguur gi doxale ko bu guuta gi du fi dugg waaye dafa fekk ne jaloog ba la ñu ca doon wut moo doon ay kàngam yoo xam ne ñu ngi doon waxtaan ak ñoom pour duggal leen ci biir nguur gi ba ñu demee ba déggoog ñoom dañoo daaneel jaloog ba ñooña dugguñu ñu daaneel dialogue. ñi nga xam ne gëmuñu woon ne jaloog national bii am na solo bokkoon na ca Idrissa Seck ak Ousmane Sonko ak ñeneen ki nga xamante ne nag mooy Ousmane Sonko ca jamono yooyu sax dafa waxoon ne lii du dara lu dul mise en scène comme bu fekkente ne daal dañoo nekkoon ci cinéma wala théâtre du ca mën a am dafa mel ni kii di président commission ba di faamare Ibrahima Sagna da koo dëggal ndax dafa toog ba mu neex ko mu tëj siège ba. daal di def ay kontam ci koppar yuñ ne tegoon nañu ko ci loxoom la ca desoon mu delloo ko trésor public ba léegi nag résultat dialogue national bi furaas daal di xëddeen. Binta Diallo ñaar fukki simili moo bootu ci benn waxtu mbokk yi ñu wéy ci xibaar yi wax ci wàllum wér-gu-yaram médecin pharmacien chirurgien ba ci dentiste ñoom nag daanu amal gréw ñaari fan li ko dalee fukki fan ak juróom jàpp fukki fan ak juróom benn ci weer wii la tax ñuy gréw nag dëxën dëxën nañ ko ci benn plétar Kumba Fay yor na ko. ab grève ñaari fan fukki fan ak joom ak fukki fan ak joom ben po weer wi noné nam ma doxalee SAMES syndicat bi ëmb mboolem médecin yeeg pharmacien yi fi ci Sénégal way ko docteur yi na mu ñoo joxé certificat médical du ñu joxé certificat de genre de mort mo xam bépp xeetu kayit bu mu mëna doon xana kay kayit yi nga xamante dafa dafa laaleeg cas urgence yi ci seen communiqué bi médecin yooyee di xam ni gis nañu seen natango noné yit nongo yi nga xamante dañuy jàng médecine tey jànkoonte

dal ci sen kaw médecin yooyu gis ni euh, état bu Sénégal àndul ak benn sérieux jëm ci wàllub négociation yi lolé di liñu xamlé ñom way ko docteurs yi ñuy sàkku ci way politique nak noné ñi nek ci société euh, civile bi ñu daal di xaatim ab charte ba tax ñom kenn dotul amati fitu fitnaal leen wala di len xokatal syndicat bi di sàkku it ci nguur gi mu daal di ay mesures yo xamante da fay assurer euh, sen sécurité waaye it ñu daal ñak ñi nga xamante ay médecins lañ yu nekk ci spécialisation wala nongo yoyé nekk ci faculté bu médecine ci nu mu gëna a lu ñeel grève bu ayu bés bi nak euh, syndicat bi di xamle ne lii di ka urgence yi euh, bokk ci way tawat yi nga xamanteni yitt dañu amé coronavirus euh, bokku ñu ci waaye it activité ñel campagne bi dem ci boobu lepp jangoro bu coronavirus bokku ñu ci. Kumba Sandiane fay dess ci wàllu wér-gu-yaram batay ak ñak yi nga xamanteni ñu ngi koy ñak ngir xex feebar bi di mbass mi seetlu bi moy semaine bi taux de couverture bi dafa wañéku lool xamunu nak li tax. Euh, bu ñu ko méngaleeg euh, ba ñu koy tàmbali euh, ki nga xamante ni moo jiite programme élargi de vaccination di docteur Ousseynou Badiane moom nee na disponibilité vaccin yi ci la ñu ànd ak Awa mbay ñàkk bi jëm ci mbas mi ci ndoxteelu ay bës bi lim bi dafa wàññeeku loolu bu ñu sukkandikoo ci takk bi ministère de la santé di joxe saa su ne ndax bu ñu ko méngaleek ak ay bés bee ñu génn boobee la nit ni ñu ñàkk gën a bari fuuf kii yor programme élargi de vaccination docteur Ousseynou Badiane ne lim bi di wàññeeku nànk nank lu war la bu ñu sukkandikoo ci ñàkk yi des. boo gisee ne ñàkk yi li ñu ci amoon lim ñu ci amoon bariwul mais liñ ci amoon aussi dañ ne woon dañ koy jagleel ñi nga xam ne mooy fajkat yi d'abord ak ñi nga xam ne dañoo am at yu bari ba pare am feebar mais dañoo commencé woon ci fajkat yi nga xam ne fajkat yi en dañ leen doon regroupé dañuy dem ci hôpital yeeg ci centre de santé na vacciné ay huit mille et quelques mais loolu bu nit ñu gën a avancé nag lim bi dul dafa war di gën a wàññeeku parce que ñàkk yi aussi da doon wàññeeku et puis ñi ñu doon ñàkk muy personne nga xam ne dañ leen regroupé woon ñàkk leen pratiquement ñi ñu si waroon ñàkk ñàkk nañ leen ba yenn saa yi sax yenn saa yi am na structure yoo xam ne vaccin yi matul manifesté yi amoon nag ay bés bi ñu génn ci Ndakaaru ak yeneen diwaan yi ci Sénégal wàññiwut dara ci activité vaccination yi nga xamante ne ñu ngi doon wëy normalement docteur Ousseynou Badiane fan yooyu boo gisee communiqué bi na fan boobu nag presque yu ci gën ne vacciné nañ ay junni nit yu tot donc malgré que trouble bi amoon na mais aussi nit ñi tamit ñi waroon ñàkku mujj nañoo en fait de ñu si bari jot nañoo ñàkku ci fan yooyu donc daal li ñu mën wax mooy ne pour le moment fi mu nekk nii daal amaguñu jafe-jafe fi mu nekk ci ci mbirum ñàkk yooyu parce que daal fi mu nekk li li ñu gën a am kii mooy ñàkk yi disponible parce que ñi ngi bëgg a ñàkk mu ñoo ëpp li nga xam ne moo fi nekk ci li mu ñàkk ñàkk yi njëkk a ñëw di sinopharm daanaka jeex na tàkk yeneen yi ci des di astra AstraZeneca ñoom itam di ñaari dose ëllëg la ñu koy commencé. Daba Mbaye wax ci wàllub diine màggalub kasub rajab bi ngir fàttaliku gane si àdduna Serigne Fallou Mbacké borom na am mu am. niki tey jii la ñu koy amal waaye nag gannaaw yi ñu fi ndax feebar bii di mbas teewul teewul ma Diop am nañu xëy ay taalibe yu bëri wutali foofee Touba. ñaari at yu toppante ñu ngi màggal kasu Rajab bi mu tombee ak mbas mi di coronavirus lu nu mel tax kilifa diine yi sàkku ci askan bi kenn ku ci nekk nga màggal ko sa kër waaye tamit nga respecté digle kër docteur mu nekk ay digle yoo xam ne ñu ngi ko teg ngir xeex lawup jàngoro ji di coronavirus fii ci diwaan bu Touba loole nag teewul ba tey ñu ngi nemmeeku fii ci diwaan bi le ay nit yoo xam ne yokk nañ ci askan bi bawoo fu nekk ñëw ngir màggal si bés bi. yi ngir nag dalal leen waaye itamit teertu leen ci jumaa ju mag ji tax na itamit ñu teg fa ab dispositif bu am solo raxas say loxo balaa ngay dugg waaye itamit solub masque laal gel ak yeneen yoo xam ne teg nañ ko fa ngir janoo ak jàngoro jile di wax ni ni ngi tey Touba mu ngi màggal gane si àdduna Serigne Fallou Mbacké mu nekk ñaareelu xalif bu Serigne Touba ci atum 1949 ba ci atum 1968 fii nag ci dëkk bu sell bi ñu ngi

ma nga ñu hospitalisé woon fële ca Paris. moom bakka Bakayoko dañ ko mujjee yóbbu ca Allemagne guddik euh, juróom-benni fan ci weeruk euh, mars euh, loolu nag maanaam wér-gu-yaramam indi coow fële ca Côte d'Ivoire ndax nit ñi xamaguñ ba léegi moom naka la def ca Côte d'Ivoire ba léegi seeni siwal na résultat élection législative yu amoon samedi gi ñu weesal samedi gi ñu weesu RHDP bu Alassane Ouattara njiitu réew ma moom moo jël ndam la am téeméer ak fanweer yi. siège ak euh, juróom-ñaar ci ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñeent yi nga xamante ñoo nekk ci l'Assemblée nationale parti féetewoo ca kujje ga séddoo euh, ñeent fukki euh, juróom-ñeent fukki siège ak benn Euh, coalition bi dox diggante PDC yi ak euh, ñi farandook njiit réew ma woon euh, Laurent Gbagbo ñoom juróom fukki siège la ñu am ci lépp boo ko xayma. ñu dem ca Mauritanie foofu nag ñu bëri ci ña fa nekkoon ay ministre ñu ngi tàmbali ñi di leen di déglu loolu nag ñeel enquête bi nga xamante ni ubbi nañ ko jëm ci wàllum crime économique crime économique moom ñemewu ñemewuma la ko laaj ci wolof <laughs> naa daal lu ba la ngi ci. loolu la démb le procureur de la république bu Nouakchott door ay audition maanaam di déglu ñi nga xamante ne ñoom lañ ci joxoñ baaraam. Mutuma euh, dossier bobé nak euh, di euh, ni njiitu réew ma Aziz yore won réew ma ak yi nga xamante ñu né def nako ci ñu ñu tudd ci ay nit ñu bari ñi bokkon ci gouvernement gouvernement mi bok ci ay ancien premier ministre ñom nak ñom lañu njëkk déglu sax dembu ñom lañ leen di topé modi guerre ak détournement de biens publics ci ab rapport bi nga xamante commission d'enquête bu assemblée nationale ba fofu ci Mauritanie si na nako at gi ñu weesu ñu dem ca gine équatoriale euh, bilan explosion ya amoon foofu la ca Bata lim ba dafay gën di yokk daa mel ni. léegi jàpp nañ ne téeméer nit ak juróom ñoo ci ñàkk seeni bakkan euh, démbo gis nañ euh, juróom-ñaari néew ci décombre ya jamono ji nga xamante ne ñi jëlee ay gaañu gaañu te ñu gis leen ñu ngi toll ci juróom-benn téeméer ak juróom juróom-benn téeméer ak fukk ak juróom altene lu ëpp juróom-benn fukki nit la ñu gis ñu. coincé woon euh, ci euh, débris yi nga xamante ne euh, ñoom lañ fa nemmeeku bokk ca ñaari gone yu am ñetti at ñeenti at njiitu réew ma di Théodoro Obiang Nguema ñaawlu nag càgganteeg militaires yi nga xamante ne ñoo doon saytu bërëb ba mbir ma amee explosion yooyu nag am dimanche gi ñu weesu nekk ci ab ay munitions daal ñoo kalaate woon tax nag euh, ba karaté googu dem sax ba ca kër yi nga xamante ne ñoo wóoroon camp militaire bu Kowa Tomacha Bata Guinée équatoriale woote euh, wàllu ci euh, communauté internationale addu ci génn àdduna Jibril Tamsir ñaan nekkoon ab bindkat ak historien mu ngi génn àdduna altine gi ñu weesu bi mu amee juróom-ñett fukki at ak juróom-ñeent néewam gi nag daañ ko yóbbu lu yàggatul ca Guinée loolee lépp nag njiitu réewum Guinée di Alpha Condé mooy jël lépp en charge Euh, ñu déglu ci wàllu mandataire bu njabootug euh, jibril euh, Tamsir Niane di imam Wali Seck jiite fondation d'appui aux initiatives pour la promotion de l'islam yalla dafa def bés bi mu dok seexam bu jigen mom aussi am 89 ans dok ci Guinée légui nak famille bi décidé ni pour ñu denc leen ñom ñaar bañ leen xajale nañu rapatrier koru jibril Tamsir Niane puisque yag na Sénégal depuis 1970 ba que Sékou Touré génnee Guinée exilé jusqu'au Sénégal

lépp loo xam ni donc mu ngi ci dëj bi xam naa nag donc suba ministre Ablaye Diop président Macky Sall nee na que na ñëw foofu seet si njaboot gi waxtaan ak ñoom pour ñu seet yan disposition lañ jël comme ça ajjuma ci suba ci 10 heures ci ndigalu Thierno Bachir Tall Thierno Madani Tall Thierno Nourou Tall ñoom ñëpp ñu jël lépp teg sama loxo dinañ ko jullee fii ci euh, euh, rawdu Thierno Seydou Nourou mosquée omarienne donc ñu ñaanal ko buñ ko ñaanalee nag ba pare def ay témoignages ay seede ba pare soog di ko mën a teg ci yoon donc pour yóbbu ko. ca Canada la ñu jëm foofee taggat nañ fa ab euh, comité bi nga xamante ne dafay euh, saytu lépp lu jëm ci wàllu liberté ak académique ak euh, liberté d'expression ci université ya loole nag li ko waral coow li tukkee woon ca université Ottawa bi ab jàngalekat bu jigéen ñu tegoon ko ay daan mu tuddoon wàllu ba nègre Mamadou Aïcha Ndiaye ci leeral. ci weer yi ñu génn coow lu bari juddu woon ci benn professeur bu nekk université Ottawa yëkkati woon kàddu goo xam ne kii dafay méngale der bu ñuul ñu naan ko nègre loolu nag juraloon ko sax bañ tekkoon ko ay daan terale woon ko mu jàngale ñaawukat ak jàngalekat yu bari yëkkati woon ci ay kàddu di ñaawlu yooyu suspension taxoon ministre bi ñu dénk njàng njàngale ma ko wi ci daara yu mag yi tax loon benn comité boo xam ne da waroon a saytu lépp luy jëm ci comité boo xam ne bii dinañ mën a taxawal jëm ci liberté d'expression ci biir université yi. kii nga xam ne que nag ministre la woon ci parti PQ mu ñu ko naan parti québécois Alexandre Cloutier moom lañ dénk comité de sage boobu moo war a waxtaan lépp lu jëm ci liberté d'expression ak liberté académique ci université Canada yi. ki doon jokkoo ak yéen fii ci Québec Mamadou Aïcha Ndiaye rajo Futur Média. ma ngoog foofee la ñuy yemale xibaaru bi teew Barthélémy Ngom. Jokkoo Njal Georges Déthié Diop. RFI Cheikh Tidiane Diagne ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélémy. mooy Georges moo ko moo ko tey yëkkati sa journal bi rek. bu ko bu won tamit moy journal ko. ah waaw loolu moom mbay leer na ma sans papier. ayca ñu wax ci coupe de la confédération jaraf euh, bu Dakar wi nga xamante

li des si euh, diggante si ak match bi bëriwul loolu moo tax gis nañu si équipe bi euh, un bon état d'esprit surtout si joueurs yi gis nañu dañoo concentré wu trop trop trop trop trop si euh, lu leen fi indi parce que xam nañu match bu ñuy bi ñu war a joué nii ci kanam parce que match boo xam ne am na importance boo xam ne sa demande concentration loolu moo tax ñu ànd ak sérénité ànd ak calme parce que xam nañu euh, équipe bi ñu war a taseel étoile sportive du Sahel équipe bu ndaw équipe boo xam ne def na jàlloo fii si Afrique donc pour ñëw taxaw si kanam équipe boobu laaj na yenn comportement yi moo tax instant bii nii moom mun nañu wax ni euh, les joueurs di Jaraaf ñoom si état d'esprit boobu lañ nekk calme serein pour match bi te kii di seen entraîneur di Cheikh Gueye moom itam am na ay kàddu yu mu jot a yëkkati wax ci gile jongante seen diggante ak doomu Tunisie yooyu de ñu teglu ko moom ci téléphone yu suubu jox xale yi bi ñu ñëwee fii ba léegi nag euh, depuis dimanche ñu ngi liggéey ñu war a liggéey gis naa si ñoom benn concentration ak benn euh, xalaatu kuy compétir si compétition boo xamante ni gëm nga ko ñoom seen bopp xam na lan moo leen indi fii ak lan lañ fi war def ak résultat bi nga xamante ni moom lañ fi soxla ñun ñi nga xamante ni ñoo leen di tàggat liggéey na si lu ni mel ba nga xamante ni mën nañ am yaakaar ni war nañ mën def match bi nga xamante ni ñun moom lañ bëgg def fii nga xamante ni moom mooy Tunisie. comme tournoi la jamante la boo xamante ni ñeen ñeenti équipe ñoo nekk te mun demee ba si cëppaandaw ko dina am ñaar ñu génn ñun suñu mbébét mooy bokk si ñaari équipe yoo xamante ni fas yéene ñu génn. loolu nag di euh, nga xamante ni moom mooy tàmbali bi nga xamante ni moo gën a baax wala moo ñun moom la ñu bëgg wala moom mooy suñu bëgg-bëgg te loolu si la ñuy liggéey mu ñu fexe ba nga xamante ni suñu première marché bi di euh, am si résultat boo xam te doon résultat positif ba nga xamante ni si tournoi bi ñu dëgmal daan mën si daan fen si bi nga xamante ni moom moo gën si tàmbali bu fekkee tournoi mi ngi commencé kon pour wax la rek bi ñu am si match bi mooy fexe ba am si benn résultat boo xam ne da doon résultat bu positif ba tey ci groupe jaraaf bi jàppale ni jamono gi sax door na diggante satisfaction di geneen équipe bu Tunisie ak doomu Burkina Faso yi di waa Salitas Barthélémy wax ci wàllum football biti réew Ligue des champions huitième de finale retour yi match bu am solo ñu koy xaar tey Paris Saint-Germain mooy daral Barcelone. waaw ca match aller ba nag Paris Saint-Germain da ko fekkoon ca dëkkam dal di ko daan ñeenti bal ci benn. tey jii euh, ñi nga xam te ñoo di waa euh, FC Barcelone war nañoo dugal lu mu gàtt gàtt ñetti but ba pare bañ a encaissé ngir mën a kon bokk am yaakaar ni danañu mën a amal remontada bi remontada bi ci niñ ko defee woon ci at yële weesu woon match googule incha allah diggante Paris Saint-Germain ak FC Barcelone danañ ko daal di door ci bu 20h jotee ngeen mën ko déglu itam en direct ci rajo Futur Media ci googule waxtu yi tamit geneen jongante ci wàllu huitième de finale yi diggante Liverpool bu Sadio Mané lay daal di doon ak ñoom ñoo ci amoon ndam ñaari bal ci dara démb Juventus de moom qualifié na ci daal dina toog gannaaw ba ñu ko éliminé ci wàllu huitième de finale FC Porto moom moo mujj qualifié geneen euh, jongante yi tamit euh, Borussia Dortmund moom mujj am ndam ci diggante mag ñi di FC Séville ba pare daal di euh, qualifié ci nga xamante ni Mon mot euh, di quart de finale pour Ligue des champions. Ligue des champions cher, nous croyons wéyal le championnat yaa Wow, vous Espagne dañuy ci 18h Atlético Madrid lay daal Atlético Bilbao. Euh, Atlético Madrid ak Athletic Bilbao ñom ñooy daal di tase ñi nga xam nak nag di wa Atlético Madrid jamono gi ñom ñoo féetee ci place bu ñëk bi ci classement bi rawé nañu ñetti poñ ñi di wa FC Barcelone FC Barcelone ni tamit euh, daal di euh, kon bok Real Madrid top ci ñetteelu place bi ci romi poñ daal di dox jamono gi ci digam ak ñi di wa Atlético Madrid ci Angleterre match avancé sen 33e journée niki tay tey 18h diggante Manchester City lay daal di doon ak Southampton féetee si fukel ak ñetteel place bi ci classement bi Manchester City jamono gi moom fété ci bopp raw gàddu gi dal di jekku lol ngir jël nga xam te euh, championnat bu Angleterre ci France ñomi tamit dañuy amal match avancé sen 22e journée niki tay ji ci ngoon 18h diggante Olympique bu Marseille fété ci juróom-ñetteelu place bi ak Rennes fété ci dixième place bi Lyon Monaco ak Lens jamono gi ñom ñoo fété ci place yu njëkk yi ci championnat bu France Dijon Nantes Nîmes ñoom ñoo di relégable yi 17h30 tay ji ci ngoon euh, championnat bu Allemagne Bielefeld dana ak ñi di wa Werder de Bremen foofu nag euh, féetee ci place bu njëkk bi moom moo di Bayern Munich rawee na ñaari poñ Leipzig féetee si ñaareelu place bi ñu daal di ko jeexaleeg xibaar bi bawo ca Brésil ak seen stade bi nga xamante ni euh, bëri na lu koy dégg moo di Maracana di stade bu mm. gën a ngand foofu ca euh, Brésil doon stade bi nga xamante ni lu mu tëye ci wàllum histoire bëri na ñoom nag dañoo fas yéene soppi bi tuddee ko stade kii di roi kii di roi Pelé moom lañ ko bëgg a tuddee mm. léegi nag ville bu Rio de Janeiro ñom nak dal ni jël gi décision gannaaw vote bi nga xamante ñu ko don amal tay jii suba gi la ci dess nak modi gouverneur d'état bi euh dal di joxe li nga xamante dal modi avalam ngir bu ko daal defee stade bobu di Maracana ju tuddee ko euh, ki nga xamante mom modi euh Pelé japp ne stade bu Maracana jot na accueillir ay final coupe du monde ci atum 1950 ak itam ci 1914 euh 2014 plutôt hum. euh, dal nañu euh, dalal li di ouverture Jeux olympiques yu atum 2016 Pelé nak ci fatali mo amna juroom juróom-ñetti fukki at ni ki octobre bi da ko doon sax fété juroom ñettel fukkeelu atam mom roi Pelé. Pelé day icône la ci football. tudé ko stade mom lu jaadu la. waaw ma nga non ken waxatu ko. waaw jërëjëf Cheikh Tidiane Diagne. jaajëf. comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS seen cuuraay raktak bi ray yoy sen gam Opalia ak sen savon de Marseille créole ñoo leen ni may li ci yéenekaay yi. ñu ànd ak Alaaji Assane Gueye. ay du yam ci bopp borom la wolof wax ca loolee ñiy nettali lanu ñàkk yàqule ko ci fitna gi fi woon ay bës bi ci Sénégal nu ko weddi ci observateur kër gi di Nokia automobile di yëngu ci wàllu njaayum wate ca ñàkk na fa lu bari pare-brise yaak dara desul sëñ gay mi nga xamante ni moo jiite kër ga di wax la mu fa yàqale ak it oto boo xam ne sax jotoon na ko jaay ba borom joxe avance day mujj xàccee mu ne keneen di monsieur Lo moom it di yëngu ci wàllu njaayum wate di xayma ci yéenekaay bi la mu yàqule bëccëgu keroog gi Auchan it observateur ne lu toll ci ñaar fukki magasin yàqal nanu ko ko sàcc ca péage gi autoroute bi maanaam benn ci milliard gu mu perte jaaykat yi yëngul seen boppit naka noonu ci li ci loru ci fitna gi ba tey ci yéenekaay bi di groupe Futurs Médias soxna si Camara moom di nettali li nga xamante ni moom la yàqule ci yëf dem na ba tuuri rangooñ sax ndax mu ne juróom ñaari at yu muy daan dooleem ay millions yu millions xëy bis rek daal di naaw ngi songee fa mu daa yëngoo ca fa mu sañce woon ca rond point juuti bi ca Tëngéej Moubarak Lo économiste jàpp ne donte xayma officiel gi jógeegul ci kilifa yi mënees na gis ne Sénégal fukki milliards perte na ko ci wàllu économie Sénégal ci boppam nag la ko sawe keroog ca bëccëg kilifa diine yi ci la yu société civile bi moo waral laas xëy fësale nataali ku tedd ki Serigne Mountakha Bassirou Mbacké Monseigneur Benjamin Ndiaye ak président Alioune Tine moom Alioune Tine yéene kaay bi xamal ñu mook ñi mu àndal ne ñu ngi wéyal seen tànki jàmm Birahim Seck bu Forum Civil moom àndul ci li nga xamante ni mooy woote beneen bu M2D ngir rek a ay wi sàkku na nag ci kilifa yi jamono jii ñu amee dal jàmm ci réew mi ñoom it gouvernement bu Sénégal kilifa yi maanaam ci gàttal ñu yombal libéré ñu nu téy ci kaso yi Birahim Seck la muy tiit nag nekk jàmm gu na sax loolee dafa mel ni moom la yéenekaay bi di la mandat di tiit ndax le mandat dafa xëy bind ne jàmm ak dal dellu si na Sénégal waaye du dal gu dal xel le soleil xëy ne dund gi dooraat na ni ñaa ngay wéy seen yitte yéenekaay bu an wane agent yu yi jàmbaare lool xamal ñu ne UCG ci boppam junniy agent la jógloo ngir setal mbeddi Ndakaaru ndaw yi ñëw takku ngir setal dëkk ba ci réew mi yëpp nag xayma nu fi juróom-ñaar fukki station yi essence yu nu fi taal ci Sud Quotidien société civile bi ñoom la ñu bëgg dogu ca mooy ubbi teg enquête enquête bu wér bu farul fenn te de njaxaanaay ngir manifester yi nga xamante ni moo fi rotali bakkan capitaine Oumar Touré mi yoroon enquête bi ci mbiri Ousmane Sonko Adji Sarr moom ci la tribune lam fa wax tey ji mooy dikkaat ci li waral mu démissionné maanaam la mu gëm di ko doxale la ñu nësaxal ci gendarmerie gi ndax nag mu ne ñaari at yi mu def ci section recherche gendarmerie Colobane liggéey na fa bu mucc ayib ndax ci junni ak juroomi téméré procès verbal bi nako fa ci moone bi ci gëna simple rek manam mbiri Ousmane Sonko ak Adji Sarr ñu koy topp guddeeg bëccëg di surveiller ka may gëtt ginaaw bi nga xamanteni fuite amna ci procès verbal bi ci mom mu ne soxlawul di leen won ak njubam ba mu démission nag légui nak mu ne am nay mi gendarmerie sax yu bëggoon euh, di ko waxloo ni ka dañoo pirater li nga xamanteni ni compte Facebook am wax ja duy waxam waye da lank bu teud ci naaj bi vidéo bi mu def kéro gi nee na Touba ñi di wër naan xel ma da tàggoog mom ak yenen ñom la bëggoon njuy bi moo tax mu mel ni ku ko fa defee ngir ñu dem di ko fa wëreeg yeneen Adji Sarr nag capitaine Touré bi mu janoo ak moom ci enquête bi la ko njëkk laaj mooy tonton ndax du ma am jafe-jafe ci mbir yi waaye moom mu laaj ko dentité rek soxna si ne ko dentité bi du bi baax ndax bii ñaar fukki at lañ ciy def ca man fukk ak juróom-ñaar ci at laa am capitaine Touré ne yi sax di lañu jëlee ci ndaw sa ci kër docteur du lu ko moom ca mu ngi la république ministre Ali ci yëf yi daal ci gàttal moom gis na ni ndajalem preuve yi am na ci lu matul capitaine Touré di leeral ne du daraay politique yu ne ci ginnaawam enquête jàpp ne moom capitaine Touré ci boppam sax bu yàggatul dinañ ko arrêté tëj ko ndax juróom-benni fan a ngi liggéeyul ci loolu absence lañu koy jàppee démission gi muy wax yéenekaay bi di enquête xamal ñu ne gendarmerie mënee su faa démissionné lu may danga faa def fukki at le témoin mbiri mbir yi ak tuuma geneen agressé gu yoon tere libération moom Khalifa Koné la xëyee tey di ki nga xamante ni moom bëggoon a taal wata wala engin bu camp militaire ba ca mboxam ca Louga mu ngi ci loxo yoon fukki fan ak ñeent ci weeru février 2021 ak léegi ñu ngi ko jàppe ci néegab ñax ci kër seeni indi fii ci ndakaaru ngir enquête bi bi mu janoo sàndaar mi Louga ñu ne moom xalifa Koné mi yenn ciy xibaar ne àndul ak sagoom dafa lankoon tontu ca laaj ya teg ca ci garda wii gi dafa lànk dugal dara ca gémmiñ ñu des libération xibaar bu mitti bii di ndaw fukk ak ñeenti at yi amoon gaañu gaañu ca Bignona ca mujj bu bakkanam Bounama Sagna la daa wuyoo le quotidien di def xayma ci ñi faatu ci réew mi ci fitna gëfi woon fukk la yéenekaay bi wax ak lu jege juróom-benn di téeméer yu ci am gaañu gaañu